bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi guddik tey gi mooy guddik fukkeel ak juróom ci koor gi ak naafilaam juróom benn rakka muy ñetti sëlmal bu ci ne fatiha benn yoon isaa jaa nasullahi benn yoon xul huwallahu ahad fanweeri yoon ak juróom ma baamu ko juróom benn rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon isaa jaa nasullaahi benn yoon xul huwallaahu ahadun fanweeri yoon ak juróom wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu